kullu Cheikhul Khadim ma doon xool yëpp sedd na Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg bég naa de Diouf gis nga. buur daan waaye waaye gis nga lu fe xol. kenn ku ne yaa ngi bi nu sëlmalee nga commencé dégg yuuxu yi. moo doon gis nga kii ma kii lool dafa daanu te dafa taxaw rek jàkkaarloo sëñ bi gis na ndeysaan lii daw na yaram lii daw na yaram lii moo leen wani Serigne Touba. moo fi nekk ndeysaan lii daw na yaram gaañaa ngi daanu buur gaañaa ngi daanu jàkkaarloog sëñ bi rek di jooy sëñ Tuubaa rek lañ bëgg sëñ Tuubaa la ñuy waajee sëñ Tuubaa la ñuy wàllee ndeysaan bëgg mën a passé lii ndeysaan day jooy ndeysaan lii tax bëgguma ko woon a tàllal micro lii dawal bëgguma ko tàllal micro ndeysaan xoolal lii xoolal lii ndeysaan. lii nga yaakaar ne neen la. xam nga du neen lii xam nga ne du neen. xam nga ne lii du neen de. ñoom ñoom du warum réew. sëñ Tuubaa ci biir xol. sëñ Mbàkke moom léegi ci biir xol. ah lii lay andi. leneen da caa xajul. ndeysaan. oh. ñii xam nga ni bi laajoon bakkan ñu joxe bakkan la. ak rasul laa ñu joxe bakkan. la ilaha illallah. xoolal ma gaañ. julli ajuma gi leen doon wax waaye fi ne julli na ba pare waaye tànk gisoo sëñ bi fatu ñii duñ fi jógee bu doon dem ba quatre heures du ñii taxaw duñ fi jógee la ilaha illallah ñu def la meññ ji ba moot tar ba nar juróomi sooral fang la